ginnaaw bu ñu président de la république joxe ay ndigal euh, pour que dans le cadre li nga xam ne moom mooy campagne de reboisement bi pour ñu bàyyi xel li nga xam ne moom mooy axe routier yi ak axe autoroutier yi ginnaaw bu ma waxtaanee ak xalif général euh, des Mourides ak euh, Serigne Bassirou Abdou Khadre ñu ñaan joxe ndigal maa ngi leen ci remercier bu baax a baax mais remercier également sama ñaari naataangoo yi nga xam ne boobu léegi. jàppale ñu ngi jàppale programme bi mooy programme reboisement bi le ministre euh, en charge des transport mooy euh, le ministre Oumar Youm beneen naataango bi mooy le ministre euh, en charge des collectivités territoriales le ministre Oumar Gueye moom tamit maa ngi koy sant di ko gërëm ci implication parce que def nañu ay réunion pour ñu seet naka la ñuy waxtaanee ak maire yi xam ngeen ni autoroute Ila Touba c' est 120 kilomètres 120 kilomètres yi les 40 kilomètres yu njëkk yi dañu traverser la région de Thiès sur cinq communes euh, yeneen 80 kilomètres yi si des dañu traverser la région de Diourbel avec 11 communes donc le ministre en charge des collectivités territoriales réussir na mobiliser l'ensemble des maires des 16 maires euh, traversés par l'autoroute Ila Touba euh, pour que ñu gën a impliqué wu ci li nga xam ne moom mooy campagne bi ñu tàmbale tey ci ndigalu président de la république parce que dafa bëgg réew mi naat donc daf ci campagne de reboisement bi fexe leen ba sóoraale li nga xam ne moom mooy axe routier ak axe autoroutier yi autoroute Ila Touba nag nekk ci euh, benn ci réalisation yu mag a mag a mag yu chef de l'État le président de la République def ci réew mi ñu fas yéene ñun euh, lëkkaloo ak l'ensemble des parties intéressées pour que l'autoroute Ila Touba ñu reboiser ko du début à la fin nee naa c'est cent vingt kilomètres sur les cent vingt kilomètres xayma nañu ne war nañu côté bu nekk euh, jëmbat fa douze mille plans muy au total vingt quatre mille plans vingt quatre mille plans yooyu yëpp c'est disponible dinañ ci waxtaan ak Ageroute bien sûr ak euh, le ministre en charge des transports ak le ministre en charge des collectivités territoriales pour que région bu nekk ñu jox ko quota bi nga xam ne moom moo ko moom la autoroute bi traversé en rapport bien sûr avec les collectivités notamment les maires en rapport avec l'inspecteur régional et en rapport avec l'ensemble de la jeunesse pour que li nga xam ne moom lañu mébét mooy reboiser l'autoroute de la Touba mu nekk une réalité. wax ni rek am nañu mbégte tey euh, gunge ki nga xam ni mooy suñu nattango suñu xarit di le ministre Abdou Karim Sall yor environnement ak développement durable mu ànd ceek euh, sama nattango Oumar Youm bu yor euh, infrastructure désenclavement maanaam lépp luy wàllu tali. Euh, ñu ñëw nag fii ci ndigalu président Macky Sall comme ni mu ko waxee léegi euh, pour bokk suñu dajale suñu doole ba lii mu décidé moom ci euh, def Sénégal PSE vert pour Sénégal yëpp naat ñu dugal si suñu loxo ñun ñëpp ñuy gërëm bu baax le ministre Abdou Karim Sall ci initiative boobu mu am ba woo ñu boole ñu ci liggéey bi. Euh, ñu koy gërëm di ko sant tamit ci engagement personnel am bi mu am ci liggéey bi ko président Macky Sall jox ndax gis nañ ko fan yi yëpp yendalul fanaanulul mu ngi ci biir Sénégal pour pexe ba décision boobu président Macky Sall jël euh, pour que ñu fexe suñu réew vert euh, mu ngi ci bu baax a baax wax ni nag lii tamit dafa boo kok nësëru président Macky Sall ci gox goxaan ndax gox goxaan it ay démembrement état lañu kon tey jii rafetlu nañu teewaayu euh, maire yi bokk ci axe Ila Touba yëpp te mu doon fukki commune ak juróom-benn euh, ñuy jaarale nuyoo bi nag teg ko ci loxo euh, maire bi nga xam ni moo ñu dalal ñun ñëpp muy Abdou Lahad Ka muy maire dëkk bu sell bii di Touba wax ni tamit élus yi ñëw nañu en masse ndax ki leen fi teewal ñoom ñëpp mooy président UAL di di docteur Adama Diouf moom it hmm. loolu lépp ñu ngi koy rafetlu. wax ni daal liggéey bi eh, dina continuer ndax nii mu tàmbalee daal ñu gis ko wax dëgg yàlla am nañu yaakaar am nañu yàqin ni buñ demee ba ci cëppaandaw la incha allah dinañ ci am ndam te ndam noolu nag mooy ndamal président Macky Sall mooy ndamalu Sénégal yi kontaan ci daje bi nga xam ne am nañ ko tey ñu def ko fii ci dëkk bi nga xam ne dëkk bu sell la muy Touba ñu commencé pour jëmbal li nga xam ne moom la ñu président de la République sant mooy d'abord euh, PSE vert bi ñu dugal ko ci programme yëpp yi nga xam ne ay programme mu Sénégal ah lii nag ñu taxaw fii ñun ak Oumar Gueye ministre des collectivités territoriales ak euh, ministre environnement Abdou Karim Sall dafay jëmal rek li ñuy wax solidarité gouvernementale gouvernement bu président joxe instruction benn ministre ministre yëpp dañu war a jàpp ne instruction boobu ñoom lañ ko jox ñu ànd ak ministre boobu parce que réussite euh, mise en œuvre instruction boobu réussite gouvernement bi la donc loolu moo tax tey ñu ñëw ànd ak sunu xarit sunu doomu ndey Euh, le ministre euh, de l'environnement et du développement durab pour jëmmal instruction bi nga xam ne président république joxe na ko ni ñu ko jàppee nag ci ñun mooy d'abord xam ngeen ne bu ñuy def ay ay yoon dafay am dañuy tuddee plan de gestion environnementale et sociale plan yooyu dafay am version reboisement dinañ ko gën a amplifier ba nga xam ne reboisement bi dina ci gën a feeñ dina ci gën a fës euh, travaux connexes yi ñu naan am habitude di ko def ci ay école ci ay clôture de salle de classe ci ay adduction d'eau ci ay éclairage dinañ gën a réorienter budget yooyu ci ci biiru reboisement ak verdissement des axes euh, routiers loolu moom xam naa dinañ ko def mais aussi dinañu xool cahier de charge yi nga xam ne dinañ koy def bu ñuy def tali ñu gën a xool nan la ñu koy renforcer ba nga xam ne cahier de charge yooyu commande publique bi dina am le volet environnement bu am solo loolu aussi euh, ministère bi joxe na si ay ndigal Ageroute pour ñu xool nan lañ koy def en tout cas dinañ jëm suñu kéem kattan ba nga xam ne lii nga xam ne dafay dundal gàncax bi dundal kom bi indiwaat ah, taar ci dëkk bi yokk bien-être ci askan bi loolu dinañ ci def sunu kem kattan ba nga xam ne travaux yi ñuy dénk ci yoon yi ak yi ñuy dénk ci euh, voie ferrée yi dinañ ko jëmal ba